benn xibaar bu firndewul la nag. Mhm. lu métti la. Mhm. lu métti la waaye yàlla mooy dogal. Mhm. yàlla moo fi indi yàlla moo nuy te duudu yaakaar naa ne ci dundam def na dundam. li ko waroon ci wàll wi mu doon liggéey di wàllu aar di wàllu woy. bi mu koy commencé booba mu ngi am ay quatorze ans quinze ans. mu nekk ko ci ay kasak biir Grand Dakar nekk ko it di woy ci mbapat yi. nekk ko dem na Miami moom Pape Djibi Ba Papa Seck nekk na nu fa woyandoo fa. Mhm. génération Doudou Seck la. génération Thione Seck la. Badara Mbuub Badara sàmb Daara Gise ah ak ay yeneen ko ñoom Mor Joor mhm. xale yooyu yëpp ànd na ak ñoom woy waaye it woyandoo aussi ak Jabu Seck woyandoo ak eh, Xaar Mbay ma jaaga ci mhm. làmb wooyandoo na yi toppoon na Njaga Mbay ñoom Bada Mbay ñoom Mawone Njaay ñoom Njaay Samba Mbu mhm. booba mu nekk xale bu ndaw yaaraam bi mu nekkee xale yi daana dem di yendu ji ca théâtre national Daniel Sorano mhm. te liggéeyu fa waaye nay toog ak ñoom rek di woy te bokk na ci woykat yi dàq woy ci Sénégal mhm. waaw bu dee ci wàllu woyin loolu nag la yàlla lii yàlla dogal ci moom it dama koy ñaanal génération li ci des ci dund bi bariwul ndax boo dee xool ci ñi ñi si des bariwunu ñu ci bari gaañu na bu dee génération ba mu nekkaloon Grand Dakar tamit mhm. xaritam yu bare bari wuy ci nañu borom mhm. e lii nag lu nit ci làmb la ndaxte ah. woykat bu mel ni Diouf Seck ñuy waaj a tëjle combat Diouf Seck woy mhm. képp kuy amateur képp ku bëgg làmb da nga am yëg-yëg boo koy waaw dina am wéetaay nag bu mu indi ci làmb dina indi wéetaay tuuti waaye feebar la boo xam ne moo ko da moo ko jël fii feebar bu yàgg la yàgg na ci moom waaye yàlla mooy dogal àpp lay xaar. voilà yàlla bi nga ko ko defee ci bisu àjjuma bi. am na ci yaakaar te nanu ñaan ñu am ci yaakaar. Mm-hmm. ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla sunu borom xare àjjana. jërëjëf information bi dégg nañ ko noonu kañ nan